Wa euh, alaikum, wa Wa assalamu alaikum la jeunesse de Pikine particulièrement le conseil communal de la commune de Pikine Nord à sa tête à Badara le conseil départemental euh, à sa tête à euh, donc c'est le maire Amadou Diarra qui vous parle qui vous remercie d'abord de votre engagement patriotique de votre engagement pour l'intérêt de Pikine parce que Taï, nous avons décidé de nous faire un petit Et ce combat, nous avons un taxi, nous avons confisqué. C'est vrai que je suis en convalescence, mais nous devons faire un Nous avons une déclaration, une autorisation, une déclaration de marche pacifique, accessible devant la rame. Nous avons fait le 4 avril pour ramal population bi principalement le ministre des sports le ministre de l'intérieur, le ministre des collectivités locales et le président de la république au Sénégal il se passe quelque chose d'anormal à l'arène nationale de y a un nekk ça fait deux ans passé une une troisième année te spectacle di am en violation flagrante des dispositions qui régissent les taxes municipales mais xamal la askan bi ci ne confiscation la loolu mais xamal askan bi ne sàcc la maanaam alalu jaamur nga jël ko sàcc la c'est du vol mais xamal askan bi du kenn ku dul le ministre des sports matarba ba ci barki démb rek ba fi ministre de la jeunesse bi ñëw wax naa ko combat bi warul am te jege si wuñu mairie bi fay seen taxe minimum quatre-vingt-dix millions commune bi moo koy perte par année daaw million vingt dix millions daaw ji quatre muy cent quatre-vingts millions man en tant que maire man maay l'ordonnateur de recettes man suis ordinateur des dépenses li ngay dépensé alalu askan bi ngay signé pour alalu askan bi dugg le recouvrement des recettes donc percepteur moy percevoir les recettes mais sous ordonnance du maire alors def ko toutes les lettres sous-préfet préfet gouverneur ministre de locale, locale, CNG ministre des sports ba président de la république une réponse ëllëg lu xew li nga xam ne fi ma waroon jaaree jéem naa marche pacifique nag lañ bindoon moomu nit préfet rejeté na ko moo tax may def vidéo bu gàtt bi pour xamal jeunesse bi surtout waa conseil communal ak conseil départemental mais préfet interdire na la manifestation parce que nee na délai ñetti fan la waroon am te samedi dimanche bi duñ ko ci doon yéen ñëpp xam ngeen fan yi ci li ñu jóge ba tax na ñu yéex a bind lettre lettre baa police léegi la ma ko notifié ma signé ko maa signé fii def notification li ma bëgg expliquer mooy maa ngi wax population de Pikine rawatina waa na ASC conseil communal jeunes sportifs sportif ñep athlète chef de quartier imam bàjjenu gox jeunesse képp kuy patriote gëm sa commune xamné li lii ñu kaas du pour Amadou Diarra pour gox bi la

préparé wu leen prochainement bi nee nañ délai bi dafa gàtt dinañ jël suñu temps ñu bind délai bi ba nga xamante ne duñu am lay bu boobaa duñu xaar sax ay notification wala ay autorisation dinañ dem taxaw ci buntu arène bi combat du fa am tànk li ñu war a fay fay kuy organiser spectacle da ngay di fay entreprenant loi bi dafa ne da war a fay taxe sur les spectacles moo xam waykat la moo xam rappeur la moo xam làmb ngay def moo xam lépp looy mënuñu comprendre Matar Ba di organiser ñuy def spectacle di fayew alal di ci gañe di yóbbu ba pare nekk faalewu mairie bi loolu mënatu nekk donc je demande solennellement à la jeunesse à Alioune Badara Fall Ahmed Gueye de surseoir au city ma leen koy ñaan xam naa ne pare nañ ko ba pare mais ma leen koy ñaan bu déggee vidéo bi ñu bàyyi ko comme ni ma ko bàyyee ñu préparé bu gën a rëy su fekkee rek lañu ko ci diggante maa leen gërëm di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah